geste bi li ko sabab moo di ni dañu nekk ci mbas muy lu jaaxal ñëpp te sonal ñëpp ku nekk nag bëgg dugal sa loxo ci biir pour ñu ànd xeexandoo ko dóorandoo ndax mbas mi jóge ci réew mi looloo tax euh, ma xam ni am na ñoo xam ne li ñuy wax de personnes vulnérables lañ maanaam ñoo xam ni yëf yi pour muy euh, dal leen xëy na dina yomb te xëy na aussi dina tax yëf bi gën a law xale yi bokk ci te bu ñu nee xale yi taalibe yaa ngi ci nga xam ni yenn saay du ñu gis ndey du ñu gis baay ñu war leen a jàppale waaye dafa am euh, benn euh, daara bo xamni man badjan la ca muy dara seyd haj malik si bu tiwawan euh serigne bi ndol ndol fouta mom moko te yere machallah xale yu bare yu muy yar te nak di len topato ndax visiter na dara bobo daara boo xam ne dañ koy sawar a jàppale loo tax mani ni dinaa ci dugal sama loxo comme ni may dugalee sama loxo ci xeexu mbas mi ci réew mi yépp wut ay masque waaye mask yu baax yoo xam ni dañ ko valider masque yoo xam ni li ñuy wax norme Pasteur Pasteur moom la dara du jàll te dañu koy fóot ndax xaleel boo koy jox danga koy jox loo xam mën nañ ko fóot bu ñu nee ñëpp war nañoo sol mask dañ ko war a maye ma dugal sama loxo nag ci maye bi def ay junney junney junney masque donc masque yaa ngi ni waaye xam nga dund bi il faut ñu bokk ci il faut ñu bokk ci ñi koy euh, li ñuy jàppalee askan bi moo tax ceeb bi saabu bi te yeneen dina ñëwaat incha allah rabbi ñu tëral ko pour Mohamed Diakhaté mii fexe ba ñu jébbal ko daara Alaaji Malick euh, Malick Sy Serigne Ndiol Fouta ñi am ay daara ku ci nekk ah na fexe ba xale ya nekk foofu dund dund bu baax te ñu aar leen ci mbas mi li ñuy wax barrières yi les barrières bu jëkk bi mooy masque yi parce que masque yi mooy tax tëflit wala lu jóge ci tissooli du la laal waaye doyul gis nga ni ma taxawee ak yow neewuma ci sa wet waruma nekk ci sa wet parce que mën naa laa jox doomu jàngooro bi wala yow nga jox ma ko ba pare ñu war a di raxas loxo yi ndox maa ngi fi at javel baa ngi fi saabu baa ngi fi pour set wecc wax dëgg yàlla bu ñu amee ay bon volonté yu mel ni professeur Amsatou Sow Sidibé ne ma Mouhamed bul dem fenn di laaj fenn ndimbal man incha allahu rabbi li ma mën dinaa ko def pour jàpp ci xale yi taalibe yi jàpp ci seen dund jàpp ci seen wér-gu-yaram ndax association bi ci loolu lay œuvrer ci njàngum xale yi ni ñuy xoolee ba njàng mi gën a baax ni ñuy xoolee aussi ba seen condition gën a baax ndax balaa ngay wax njàng da ngay wax condition de vie ba pare maanaam lay tax yow nga mën a sawar nekk ci ay melo yu baax ba mën a jàng moo gën a baax lépp looy gis loolu moo tax boobu ba léegi mu ngi ciy bay waaram wax dëgg yàlla lii di ay dund ak ay masque ay saabu suukar ba ci dëwliñ mu jël ko jox ñu ko loolu macha allah dañ ci sant yàlla donc euh, présidente ah, man ci turu association ak taalibe yi nekk ci biir association bi ñu ngi lay remercier lii nag du lu bees ci moom ndax wax dëgg yàlla def na ko fu nekk ba ba léegi dama koy woow mu ne ma mu ngi tourné mu ngi macha allah sant yàlla daal mais lii daal daf ko def te li wajhillaahi taala kon yal na ko suñu borom fay.